Bassirou mm-hmm. Diomaye Faye mm-hmm. xam nga. <laughs> dafa am dafa naan ah, waaw mais loolu bëgg naa ko dañ ko mpotul. mais bu signé wul ay ay ay documents non dama bëgg xam rek. dama lay wax bu signé wul ay documents mooy wane nii dañoo fraude signature. ah non damay damay laaj nee ma rek moo ko signé. moom moo signé ay documents. jeex na fan la ko signé kaso ba. Ah. gis nga loolu. xam nga man. ku jox non non may na ma ñëw. may na ma ñëw non man man non man laaj naa kay. tontu na ma loolu du débat parce que da ngeen koo yóbbu. sur les vingt candidats amadu Ba def ko yóbbu conseil constitutionnel daal ni ko sortie irrégulière de correspondance conseil constitutionnel tontu na ko li mu ko wax mooy nee na ko li nga wax amoo ci dara dara dara lu defe naa ni mu tontoo loolu sax boo ko liiree da ngay ruus lan moo taxoon ñu bindu conseil da ngeen ko koo wax ni ko ni mu ni mu signé xam nga wax leen ni mu sàccee impôt yi domaine fi mu doon liggéeyee wax leen mu détourné xaalis. waxu leen benn délit bu mu def xam nga lu ngeen ko wax yow prisonnier nga waroo woon a am droit patati patata comme ni ngeen di wax ci Karim Wade benn nationalité la yaayam ak papaam dëgg la dafa judduwaale ak moom mais Bassirou Diomaye Faye benn yërmande warul woon a signé prisonnier la prisonnier la am na ay droit conseil constitutionnel da ngeen ko ko wax bi ngeen ko ko waxee dalee na tontu. Mhm. dama la bëgg a ñëwal ci ay questions yu simple seen rapport bi ngeen def est-ce que xaar ngeen ba rapport parlementaire bi génn c'était de soupçon du ay soupçon ngeen wax il y a de forts soupçons génnew leen chèque bu juge bi encaissé génnew leen date bu ko banque joxe amu leen firnde bu wane ni juge bi jël na. xaalis non ñoom kay am nañ firnde. non dafa ndànk firnde muy ma may ma non non commission d' enquête parlementaire. VDS moom ñemewuñ bañ commission d' parlementaire faw nga jo xam nga dañu ni bi. <clears throat> législature bi ubbee ba léegi à part 94 milliards yi ñaata cent presque cinquante commission d'enquête parlementaire jox nañ leen ko mus leen ko faale bi yàkkamti bi ngeen ci def célérité bi ngeen def da ngeen defoon sénégalais yi dañoo wérul xam nañ lépp dañoo toog di leen seetaan xamoon nañ fii ngeen jëm bu yàgg a yàgg a yàgg est que rapport bi ngeen di def tey c'est basé sur le rapport de la commission d'enquête Macky Sall bu doon dafa cohérent da ngeen di xaar ba rapport bi bi bind nii dëggantaan gëstu nañ. kon ñu ngi ci campagne bi. xaaral rek non. <laughs> waa déglul Pape non non non. non non ñaari bokk. waa may ma boo paree nga ñëw dama ni. ba àddinay àddina boo dénkee nit enquête jox la conclusion sañoo cee jël ay acte bala nga naan rapport doo yem ci soupçon da ngay bàyyi ba rapport bi génn daal ni ñun kat gëstu nañ déglu nañ diw déglu nañ diw déglu nañ diw bi ñu leen dégloo ba pare kat gis nañ ni Amadou Ba mii. chèque bi mu jox juge bii ci dat bi wax dëgg yàlla tey na xel nit ñi ne ah kon nag président jébbal nañu président ni nag y a un dysfonctionnement des institutions bu am xaaru leen rapport bi rapport amul dafay ak 6 mois rapport du génn xam nga lu tax parce que teguñu preuve doo ma dagg. non du la dagg doo beneen bi lu gën a graaw ngeen defi assemblée te sénégalais yëpp dinañ ko yëpp nee la décret Macky bi c'est nul. te di ngeen ci gis parce que on va l' attaquer dès lundi dès suba dafay xat. maa décret bi dafa génn ba pare génnagul. non moom laa moom laa lay wax. bu génnee on va attendre le décret. voilà parce que amul base base légale. ñun sonn léegi nag ngeen jël article 31 bi ni élection yi dañ ko war a def 35 jours 45 euh, jours au plus tard 30 jours avant moom ngeen di modifier lii lañ ci bind mais duñ ko wax ci kaw de l' élection présidentielle est reportée jusqu'au 25 damaa bëgg yéen yow député nga bu dee li ma wax amul nga teel ma koo wax ma. changé non député. doo député bon ministre nga donc yow it xam nga li xew assemblée. xam nga luñ ci teg xam nga lu ci teg may ma mais égaleel Amadou li nga wax dafa solo xam nga luñ ci teg Amadou égaleel Amadou égaleel ah, s'il te plaît xam nga luñ luñ ci teg waaw le président de la république reste en fonction maanaam da ngeen a yokk mandat Macky Sall modifier article 31 yokk mandat loolu mooy projet révision bi léegi di ngeen ma wax article 27 bi ne la mandat du président et de cinq ans article bu ne mandat bi kenn mënu ko laal alinéa 7 bi ñëw nii kenn mënul révision constitutionnelle bi ngeen def mënta laal article 103 ci mandat léegi da ngeen may expliquer constitution bi ni mënoo leen a yokk mandat Macky Sall nan ngeen koy indi les dispositions transitoires te 2016 bi ñu bindee nii sa man sa disposition s'applique au mandat en cours conseil constitutionnel da koo dindi nee na disposition transitoire kenn du ko def ci mandat lii mooy fay bi ngeen fayee Macky Sall pour mu reporter élection yi ku nekk ci yéen da ngeen def seen benn combine <laughs> ngeen def seen report ngeen fayee ko 26 mois de plus 6 mois yi kaay ma yëgal la. Mm-hmm. Mm-hmm. moo tax damay bañ recalé yi di tëb wala jàpp ni ñii dañu leen liggéeyal projet de loi bi révision constitutionnelle bi gisoo ci benn yoon dañuy modifier logiciel conseil bii réviser parrainage amu ci. dañuy def fichier électoral amu ci xam nga lu ngeen ci yamale tous les problèmes de rec des recalés et du processus électoral nekku ci benn mbir ngeen ci bind Macky Sall day toogaat juróom-benn weer ci réew mi.